asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur euh, Kossy TV ñu ngi am beneen yoon kàddu kontante ak mbégte bu baax a baax si ànd bu rafet bi nga xamante ne nii yéen a koy ànd ak ñun si liggéeyu Medina baay si biir réew mi ak si bitim réew waaye su ngeen ñu gisee fii nag dëgg-dëgg du nekk lu jaaxal kenn waaye dana nekk ñu jaaxal ñenn ñi mooy suñ taxawaay lan la fi xam ngeen ne ara Jakarta bi ngeen jàkkaarloot mu nekk arrêt bi nekk si en face rond-point Medina Baye bi loolu nag suñ ko waxee mooy ñu ngi si wàccaayu gàmmu dina Baye international si biir réew mi ak si bitim réew kon arab bi bokk na si ñuy dalal gan yi arab bi bokk na si ñuy yóbbu gan yi waaye arab yi bokk na si ñi nga xamante ne gani Baye bu ñu ñëwee ñoo leen war a yóbbu ku si nekk sa kër fa nga jëm ñooñu nag am nañ cër si Medina Baye waaye ñooñu it am nañ cër fi nga xamante ne nii moo nekk tey si Télé Kossy TV moo tax danañ dem si jaaykat yi danañ dem si waa Jakarta ku si nekk ñu xam li nga xamante ne moom ngay dundee wàccaayu Medina Baye ak difficulté yi nga xamanteni ne ni moom ngay am ñu fasiyene jakarlo ak kenn ci ñom ñi nga xamanteni ni ñoy ubbi jotaay bi sañ bi tour bi. mam bay waaw tay ñu fekk leen fi tay ci liggéeyu euh, waccayu gamu Medina bay gi. Ara Jakarta mënuñ ko wax tuduñ Medina bay waye gamu Medina Baye te mënuñ ko wax tuduñ Ara Jakarta yi ndax xam nañ ne gan gi nga xamanteni ju jóge ko na si bitim rew ak fu nekk bu dikke yeen leen di yobbu seen waccu way tay ban kaddu nga am tay pour jox ko kilifa yi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu xalifa bi al na ko fi yàlla yàggal may ko wér di nuyu imaam Cheikh al na ko fi yàggal may ko wér di nuyu mbooleem doomu bàyyi ak taalibe yi ak soppe yi waaw ñun nag ci dëkk bi lañ dëkk fii nii di fi di di fi daan doole wax dëgg fa yàlla yàgg nañ fi li ñu yor nag mooy Jakarta lañuy dawal ci xay gi lañ nekkoon di fa liggéey waaw am na jam am na jamono gàmb bi mu jubsee ci lañu fi Euh, Baye Mahmoud Niass yàlla <clears throat> moo ñu toxal si fii nii après ci ci la ñëw fii ñu nekk fi daal di di liggéey ñun nag liggéey lañ bëgg doomu pays bi lañ ay taalibe lañ te aussi bëgg nañ lépp luy lépp luy pays bi def it ñu jàpp si ndax ndax lii lañu yàlla sedd mais ci nit ku nekk ci la nga yëngu ci la ci nga mën a jaamu yàlla. Mhm. dëgg la ndax ñun <clears throat> am ak ak ak nu mën a demee war nañoo mën a gàmm bu jotee. ñu am accessibilité ci biir dëkk bi ndax parfa dañuy liggéey ak ñoo xam ne ne ay kilifa lañ ñu ñuy oo ñu leen ñu ñuy yónni ñuy kii waa Ansaarud-Din fekkente ne mën nañoo jàppale ci loolu bu ñu amee sax ay badge yoo xam ne nii dañu koy jaay ndax ñun jàppalante lañ bëgg ndax lépp loo xam ne bu bu xewee muy ziare xaalis muy beneen ziare ak lu ci mën am ñu ñëpp dañuy teew def ak lépp lu ñu am ñu def ko ci manko di ko ci def waaw kon warna ñu mëna dal euh wan ñu yoon ndax ay ay ndaw lañ rek ay ndaw lañ ay talibé lañ. Mhm. Ah, waaw bo do am tay benn message tay bo xamantene ni dang da ko jox euh, wa Ara Jakarta yi ñi nga xamantene ni ñi ñu ngi war Medina bay lo leen di wax si bës bi nga xamantene ni bësu international la ci biir réew ma ci si bitim réew ñu fassiyene dala ay pèlerin yu bëree bëree bëree bëri lo leen di wax sa jakarta man yi. waaw lima wax sama mbokk jakarta yi ñi nga xamne ay dawal kat jakarta lañ. dëgg la nag liggéey bi bu gàmmu jotee ñu bari dañuy jógee koo fu nekk ñëw fi di liggéey doo xàmme ku fi dëkk ak ku fi dëkkut koo xam ne nii ku defkati ñaawteef la wala déet li ma leen li may li may conseillé li may waxal ñi fi dëkk daal mooy nañ booloo jàppoo ja xam ne gàmm gi ñu ñu ñu suñ gàmmu la. Cheikh Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom la ñuy liggéeyal waaw nañ nañ ci taxaw jéem a jéem a jàppalante ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo ñëw di liggéey si liggéey bi ak doomu pays bi nga xam ne ne dañuy xëy guddeeg bëccëg di liggéey di liggéeyal Cheikh Ibrahima ñu ja ñu jàppalante ñoom ñu ñu def liggéey boobu ñun ñëpp daal. Mhm. man maam Baye Dieng laa tudd. allah voilà jërëjëf maam Baye kontaan nañ bu baax a baax ci kàddu yi am solo yi nga xamante ne moom nga njëkkati waaye gis ngeen arrêt bi dëgg-dëgg seen bennoo ak seen àndoo moo tax ñu organisé wu ko Kossy TV bala nga jàll fenn suñu ngay njëkkee ndax dëgg-dëgg tey liggéey moo naanaa Cheikh Ibrahima moo ñu yëkkati sëñ bi ñu la fekk fii tey si arrêt Jakarta bi tur bi man Cheikh Ibrahima macha allah yow moom defe naa kenn du la laaj maanaam taxawaayu gàmmu gi Cheikh moom boo ko fekkee si waaroo muy liggéey kon ban kàddu nga ñu ngi nekk si fuglu gàmmu ànd ko comment waaye ànd ko Ansaarud-Din waaye ànd ko tim Kossy TV yan kàddu nga am maam pour joxe ko. waaw loolu monsieur maa ngi nuyu waa dëkk bi di nuyu ñëpp di nuyu xalifa bi di nuyu suñu sëriñ papa Cheikh di nuyu imam di nuyu suñu si Sirajo di nuyu suñu papa Abdourahmane di nuyu mboolem commission bi ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu gàmm gi daal. ah ñoom moom xam nañ leen bu baax parce que ñoom ñoom dañuy ñëw fii bu gàmmu jub see bu ñuy liggéey. ñun daanaka ñun ci liggéey bi lañuy ñuy bokk bokk nañ si ñiy bale ci tali bi bokk nañ si ñiy joxe ziare xaalis bi bokk nañ si bokk nañ si ñiy def euh, maam lépp lu ñu laaj si pays bi rek bokk nañ si parce que ñun doomu dëkk bi lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee ba toll ni ñu toll waaw nekk fi taal bi nekk taal bi Maam Ibra Fall waaw moom ñun moom lépp luñu ñu taxaw lépp lu taxaw si gàmm gi rek bu ñu si woowee dañ dañ dañ siy wuy si lepp lepp lu ngeen taxawoo si gamu gi su ngeen ci ooyee ñu uyu si mais amma yakkar yaakaar ne rond point bi ku ne xam ne central mi dina bayila euh auto jakarta saret yëpp fi lañuy jaar ah. té def naa bu gamu jotee ye léeg ngeen am yo xamanteni ngeen kay dund lo xamanteni ne nii sa yi mu neex ngeen wax ko timit wala li ngeen dund lan la fi dal wa fi mom li ñu dund mom moy bu gamu jotee mom boko dañ ci ñi xamé dañuy pak dañuy déplacer wu dañuy gënné fi dañuy dem fu sori dafa nek té ñun dañuy liggéey ak waa dëkk bi am na sëriñ soo xam ne ñun dañoo xam parce que fii fi lañ juddoo dañuy yónni sax pour ñu dugg ci dëkk bi sax problème lay doon pour ñu dugg ci dëkk bi sax problème lay doon ñu bëgg nag maam euh, euh, bas si boo xamante ni ñoom dañu koy defal maam am ko Ansaarud Din ba nga xamante ni bu ñu bëggee dugg fii du jafe si ñun waaw bu ñu ko bu ñu li ñu laaj nag mën nañ ko see fay waaw parce que ñun doomu dëkk bi lañ waaw doomu dëkk bi lañ te ñun moom lépp daal lépp lu dëkk bi taxaw daal ngi ci taxaw bu baax incha allah Uh, see jërëjëf euh, kontaan nañ si vie dëgg-dëgg la moo nekk kàddu gi nga xamante ne nii ara jakarta bi yëkkati nañ ko waaye nag ñu dem si nga xamante ne mu nekk Samba nekk koo xamante ne dëgg-dëgg tuddukatu yàlla la te defe naa même bu dee benn minute sax xanaa dañ nañu ko may rek si euh, bak Mawlana Sey Ibrahim bi nga xamante ne nii weeram baa ngi ñëw te kenn ko si nekk dégg nga ni nga xamante ne nii noonu la ñuy gi ànd ko ak komaaf ni ma ko waxee sànq rek ànd ko Ansaarud lépp si liggéey Ibrahim waaye nag ànd ko seen télé bi nga xamante ne nii TV international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 لا إله إلا قياتو سيدي برهما فصلن أدنى بقي الله بنياري روك باي شيخو دي سن مربي ماي سيدي برهما يلا داجي بقل اللامبي جبل كبرهما تجي دامبي لري جبل سيدي برهما يلا يوني كمدان يوني كوكو لندوار سر الحق فن سودان تدي برهماي ناي بودي قلم ببل دوم يا تق منشوب يمون وتلين بون ميلان مونيخ تيدي برهماي فنكو لين تن بوكي عربي نوشن دومي باي جبي شري هاتو مونيخ تيدي برهماي حق قدره ومقدار عظيم jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne nii pays Mawlana c' Ibrahim dëgg-dëgg mooy fi mu jeexal rek mooy euh, fonk leen seen mbokki aari fii ñoo seen doomu baay def naa TV su loolee doxee waxtu wu nekk ndax ñun ñëpp rek ñoo bokk nga xamante ne moo nekk Mawlana c' Ibrahim ñes Baye Baye Mass gannaaw biñ la fekkee fii nii yan kàddu nga am ñu fekk ci woy wàccaayu fuglu gàmm Medina Baye euh, ngeen nekk si rond-point yi Medina Baye bi bokk si ñi nga xamante ne ni ma ko waxee sànq sama njëkkantalu wax rek mooy si ñi wasaare gani Mawlana c Ibrahim ci kër gi ñu bàyyi la micro micro Kossy TV nga nuyu waa waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci ziyaara bi suñu xalifa di Cheikh Ahmed di ñaan yàlla may ko fanu gudd ànd kon ñaan yàlla mboolee mi ak sembam yàlla yàlla matalee ko ci ay loxoom ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim barke Maam Ibrahima Fall di ci eh, toftal suñu imam muy Cheikh Alioune Cissé eh, imam ko ñaanal yàlla fanu gudd ànd ak wér muy Cheikh Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla wér ak wérle ba nga xam ne képp kum jiite rek yàlla na sa mbir wér eh, yàlla sa mbir iwén ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim di ziare mbooleem muqaddami Baye ak mbooleem doomi Mawlana Cheikh Ibrahim waaye ziare bi duñ ci njëkk a fàtte muy suñ sëriñ di suñ lépp muy Baye Mamour Niass nga xam ne ñoo bokk ak moom nekk Kossy nga xam ne Baye ma waxoon ne mu ngay dekkali Kossy fa lay dëkk far mébétam ne ci Baye Mamour laa koy motalee muy sama doom ñu ngi koy ziare muy suñ sëriñ di suñ lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfeex ak tasiir fan wu góor daan dëgg gu ak wér di ci toftal suñ sëriñ muy doomi Mawlana Cheikh Ibrahim di Baye Siraaji ñu ngi lay ziare di la ñaanal yàlla fan gudd ànd ak wér ba nga xam ne liggéey bi ngeen sémb yàlla na yàlla ko ci ni mu gën rafetee di ci toftal Baye Abdourahmane di suñ doomi sëriñ di suñ sëriñ ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it fan wu gudd ànd ak ba liggéey biñ ko jox yàlla na yàlla matale ko ci nii nga xam ne moom la Mawlana Cheikh gërëmee di wax ne wàccaayu gàmmu Mawlana Cheikh Ibrahim du murit du tijaan du xaadir du laay ñëpp ko bokk ndax baatab laay laay lelaa bi duut murit du tijaan duut xaadir ñëpp ko bokk jëmmi yàlla ji ñëpp ko bokk kon muy Tuuba muy mbir na Mawlana Cheikh Ibrahim fu ci xewle rek bu fekkee ne jullit nga rek war nga caa def li nga man ak la nga mënut man damay xam wax ne taalibi Mawlana Cheikh Ibrahim bu ne gëwma taalibi Sëñ Tuuba duxul a taalibi waaye taalibi murit bu ne gëwma taalibi Mawlana Cheikh Ibrahim duxul a taalibi kon ñun dañuy wax ne ñun kañ yi roy moo suñ muy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne moom taalibee ko mooy lim xam yaroo ko mooy lim xam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku leeram te barkeel ak njabootam di wax ne gàmmu Mawlana Cheikh Ibrahim gàmmu ñëpp la gàmmu international la di ñaan yàlla ñu ngi koy séntu ci bisimilah yàlla nañ ci yeggali ci alhamdulilah sembu yi ñu ci sembu yëpp yàlla na matee ci seeni loxo waaye di wax ne suñ papa yooyu ñu tudd mooy Baye ji ak euh, Baye Abdourahmane ak baay Mamour di wax ne ndaw ñoo xam ne lañ ñoo xam ne ñoo ngi fii ci rond point bi Médina Mawlana Cheikh Ibrahim tuddee rond point bi suñu àll bi yaa xam ne dara taxul ñu tuddee ku ko lu dul xitmaan Mawlana Cheikh Ibrahim ndax moo ne woon ku ma liggéeyal jot tàkkutéefam kon lool moo waral ñu ne fii neewoon ci lu dul tagg Mawlana Cheikh Ibrahim neewoon ci lu dul jaamu yàlla neewoon ci lu dul liggéey yóbbul suñu njaboot tuxuñ sàccuñ saagawuñ dégluwuñ musique loolo waral ñu nekk fii jege pays bi nga xam ne ñun li nga xam ne liñ mar buñ maree ñu koy jox muy baatab laa ilaaha illallaah nit ki li mu am rek moom la mën a joxe ñun laa ilaaha illallaah moo ñuy dundal moo ñuy wéttali moo tax mënuñoo sori feneen fu dul ñoo jege fu dul pays Mawlana Cheikh Ibrahim bi looloo tax nag ñu wax ne gàmmu gii di ñëw ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñooñ nga xam ne ñoo ŋànk liggéey boobu di leen ñaan ndax ñun ndaw yi Mawlana Cheikh yoo xam ne dañuy liggéey ak waa pays bi dañuy liggéey ak mi baay ak seti baay ñu ñuy yónnee fu ne ah, di ñu soxlaal te bëgg nañ fu ñu ndawal baay yónnee wala doomi baay ñu mën a dem defal ko li nga xam ne moom la bëgg ba mu gërëm ndax bu gërëmee rek baay gërëm na waaye léeg-léeg dañ ci am jafe-jafe yoo xam ne police yi dañ ñu ci arrêté du ñu wala ñu ñuy tere fi nga xam ne foofu la ñuy taxaw te dara taxul ñu di ko def lu dul dimbale jaami yàlla pour ñu mën a yegg fañ jëm. waaw léegi Baye Mass def naa dañ leen di tere dañ leen di tooxal dañ leen di xaw a euh, mittal sax yenn coono yi léegi nag loolu yow ba ne xaar nga yaakaar ne moo ko war a dindi te kilifa yi instant bi ni ñu ngi lay seetaan. waaw xalaat bi ñu ko mën a dindi mooy ñoom ñoo ñu mën a jàppale ci ngir lan comme que dañoo bàyyi dafa taxawal Ansaarud-Din Ansaarud-Din mooy lan ndaw ñoo xam ne dañoo takkatoo pour liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim pour xidmaal ko ci jëf ci wax ci liggéey kon lii ci la bokk muy lan tey bu ñu mënee dimbali ci badge yoo xam ne tey dañ ñu koy defaral nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy taxe Médina Monarch CRM ñoo koy yor même bu ñu koy joxee 1000 francs wala lu ñu ko mën a joxe loo xam ne danañu mën a dimbale te kuy dimbale nit ki doo ko tegal loo xam ne lu diis lay doon ndax taali bi lañ xamuñ suñuy lañ bañ mooy topp poche nit ñi di dagg wala ñuy agressé nit ñi loolu lañ loolu lañ bañ moo tax ñu ñëw fii pour daantuñ doole li ngeen ñu ci mën a dimbalee mooy defaral ñu bàcc yoo xam ne da ngeen ñu koy xéewaleel ci 1000 francs wala ci téeméer ñu mën ko jënd ñu ñëpp xamee ko nga xam ne client bu bu ñëwee sax bu ko neexee dafay laajte ndax yow mii dawal jakarta bi am nga bàcc boo xam ne moom laa la mën a wóoloo ba nga mën maa yóbbu ndax ñi fiy dajee ñëpp duhuñ benn ñii danañ ñëw ngir wut luñ yóbbu ñii danañ ñëw ngir yàq ñii dinañ ñëw ngir ja ngir ngir ngir ngir ngir xajamal liggéey bi ñun nag dañuy wax ne ki nga xam ne dañuy wax ne ku wàlli yaani sa dëkk moo tëggut ñun tuñ dëkk moo tëgg kon ñun luñ ci man ci mbaax luñ ci man ci njub danañ ko ci def te njub googu kenn mënuñu cee dimbale lu dul yéen ñi nga xam ne yene a yore organisation yi muy suñuy sëriñ di doomi Mawlana Cheikh Ibrahim yéen rek lañ mën a wax ngeen mën ñu cee dimbale ci bat yooyu neen pour suñu liggéey bi mën a yomb ñu man ko jaarale ci yoon loolu rek lañ leen di ñaan bu mënee nekk ndax ñun bu ngeen ne ñu tey jug leen fi mënuñ cee teg baat ndax kuy defar bu ñu la demal kaay defaral la ma da ngay jóg pour defar ndax fu fi ziara amee bàyyi basa ngi nii mooy suñ te seede moo ñu naan ziara na ñu dajee la ñun ñëpp suñ ci tur jox ko ne ko joxal ñu Mawlana Cheikh Ibrahima mu ñaanal ñu mooy suñ këll yàllaanu kaay loolu moom la ñuy def mu ziara xaalis di leneen ak leneen ba ci Fass Baye Mahmoud kon loolu foog naa ne ndaw li koy def bëgg naa liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima waaye nag dañuy wax ne liggéey boo amee ku la dimbale dana yomb pour nga mën a liggéey kon ñu ngi leen di ñaan di leen tàllal loxo ñun seen i taalibe pour ngeen dimbaleen ci ci bat yooy noonu nu mu mën a gën a gaawee ak nu mën a yombee ngeen bañu ñu mën a liggéey fi ñu nekk ndax yàquñ fi defar moo ñu tax a jóg kuy defar nag boo gisee ko yàq da nga ko tere loolu rek moo ñu tax a jóg ndax fi ñu haayee buñ ñu fi jëlee it yeneen jaaykat lañ fi indi te ñooñ buñ fi ñëwee ay sabara ki musique lañ fiy teg te bu foog naa fi moo naan seeraam loolu war na ko mën a jomb loolu rek moom ne woon moo taxoon ñu ne nañu ci dimbale ay bat yi ñu ñu toog liggéey organiser suñ suñ place ba nga xam ne doo am xajam doo am yàq doo am njëkkalante kuy jàll da nga boo jàllee dinañ la mën a la jaaral fii ku bëgg a demee la yóbbu ci jàmm yeggale la ci jàmm mbokk téléspectateur euh, Kossy TV def naa Vieux Diop sama caméraman ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne nii mooy sama gaay yu baax ñi antonot si wàllu liggéey bi yombal ñu liggéey bi loolu wax dëgg yàlla xam nga ne Jakarta boo ko téyee benn minute rek yaa ngi ñàkk xaalis bu bëree lii daa fekk ne ñu nit lii ne nekkoon suñu bëgg-bëgg bi ndax waar wi benn la da nekk fee si média bi ñun ñu nekk fii si liggéey bi waaye ñun ñëpp pour wàccaayu gàmmu bi dina bàyyi moo ñu tax a jóg kon daal dëgg-dëgg lépp loo xamante nii yëkkati nañ ko fii defe naa kilifa yi dégg nañ ko waaye nit ñi tamit dégg nañ ko bàyyi nañ ko xel bu baax a ñoom ñëpp ñu ngi si biir ñoom Baye Mass kenn ku si nekk daal si ñoom dëgg-dëgg yëkkati nga kàddu yoo xamante nii euh, nekk na la am solo xam naa nag comme ñu ngi si rond bi rond point moom defe naa suñ ko waxee parti bu si ne am na ñu fa a deug waxtu wu nek rek ñu ngi and ak eh, ku ci ku liggéey ko TV bi di baye xel bu baax baax seen bi di ko TV tay ñu ñëw fekk leen fi ci rond point bi gëna bi leen nuyo tour bi. alaykum wa rahmatulah ñoo ngi fi ci rond point Medina Bay di yeesal suñu taalube di siaré ak and ak jéggulu ak ak tuub ñi rafetlu nak liggéey bi ñi rafet def fi ci gamu gi waye nak ñi ngi toroxlu tim ci suñu kanam serigne ndaxte gàmm gi gu ñëwee yëkkati bi ñuy yëkkati ak bundu xataal bi ñuy bundu xataal fu ñu teg suñuy bagage ñu ne ñu yëkkatil te bu fekkoon dañuy yëkkati ànd ak ak ak defar ñu defar ba mu set bàyyi gan ñi ñu dal waaye dañuy yëkkati léegi ci suba si si ngoon gi ñu jox fi keneen mu toog ñuy ñaan nag ci suñ sëriñ ci waa dëkk bi ci ñu fi dëkk te xam ñu ñuy doomi pay bi di sax saxu pay bi nekk fi ngir daan suñu doole luñu yóbbu ci suñ kër luñu yóbbu ci suñ njaboot liñ fiy jëleet ñu ne dañuy am ay gan te ci lañ leen di teral léegi nag bu gàmm gi ñëwee ñuy yëkkati ñu ñuy tolof tolofi fu nekk ñu tong tongal suñuy bagage muy lu ñu métti lu daw yaram lu kéemtaane ñuy ñaan suñu sëriñ te ñoo ngi koy dékk suñuy loxo di ko ñaan yàlla di ko masawu te di ko balu àq loolu daal moo nekkoon suñuy kàddu wasalaam ah, ma ne ko suñu leen doon laajtee lan ngeen di ñaax seen mbokk jaaykat yi ne si biir dëkk bi defe naa tamit yéen a ngi jaay waaye it yéen a war a defar encore ñun li may ñaax suñ mbokk jaaykat yi ci dëkk bi ndax toujours dama koy métti lu di ko wax mais bu fekkente ne nii la ñuy defee li ñuy jaay tamit moo tax fuñ nekk ñu di ñu xatal nit ku nekk fa nga nekk da nga ko war a defar di ko setal di ko rafetal ndax ku rafetal sa bopp nga rafetal surtout booy jaay ñam fa ngay jaay dafa war a set boo ñëwee nga toppatoo ko bale fuugit taxul dara baax soo balee fa ngay liggéeyee buub ba mu set nga yen taal bi mu tuurali la wala bu oto bi romboo nga teg ko ci keneen def noonu keneen def noonu dëkk bi dana set waaye lu toll ni Médina Baye ñu dee ñun ñoo ko moom di doomi dëkk bi di taalibe dëkk bi dëkk ci pay bi di liggéey wacc noonu pay bi muy tilimit du lu rafet du lu jaadu nañ dimbale suñ bopp dimbale askan wi dimbale pay bi te fas yéene liggéeyal suñu sëriñ ndax liggéeyal sa sëriñ liggéeyal sam réew mooy liggéeyal sa bopp waaw. kon yaa tagg naa buñ la fekkee fii nii sa na naataango bi sànq rek am na yu mu yëkkati si ñaax mbokki jigéen ñi waaye mbokki tamit ñi defar tamit waaye tamit yow. ñu fekk fii gis nañ nga wàcc sànq si oto bi ak bagage yi tey nan ngeen fuglu gàmmu Medina Baye salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu kenn ku si ne turam ak ak santam wàccaayi gàmmu gi duñ def lu dul kontaan ci ndax ñun Medina lañ am bëgguñ lu dul baay di doomi pie bi ñun de suñ baaxuti suñ bàyyi baaxoon nañ ndax liggéey nañ ci pie bi loo xamante ni nii ñun mënuñ leen a jot ñu ngi góor góorlu nag di fexe suñ bayi, fañ jaaroon nag suñ yaay ñu ñu jaar fa ah kontaan nañ tamit ci li nga xamante ne nii dañuy defar defar boobu nag ñun ànd nañ ceeg ñoom ànd nañ ceeg ñoom euh, ba moo tax amul lenn loo xamante ne nii lu ñu métti la li ñu métti mooy lenn ñun ay jigéen lañ dañuy daan suñ doole li liggéey suñu rek lañ koy gan ñii di dikk ñu di leen di dalal dañ ciy am te li liggéey di ko ñaq ci la teral suñu gan ñi ca xay gee fa lañ nekkoon nangu ak taalibe ak dégg ndigal bàyyi tere moo ñu taaj fii ci rond bi tey ba tey fekk ñu fi waaye bañ ñuy jëlee fee ca xay di ñu indi woon fii métti na sëñ Mamour toxal ñu fi Assane mu bay Ilimaan moo ñu daggaloon ñun fii place ci rond-point bi sëñ Mamour fee la samp mbaaram ma ne dañu inaugurer rond-point bi ñaanal ñu fi yàlla tuddee ko rond-point xaar yàlla na toog leen fi xaar fi yàlla yàlla dana leen fi fekk bàyyi dana leen fi fekk ñu newoon ca xay ak bàyyi gee ñu ñëw keroog ba mu sampee fee mboolem place bu ne Assane rëddaloon fii dane kenn ku ci nee na dem toog place am ñëw toog suñu place mu ne jekk na baax na fii lew na leen doom mu ni lew na lewee waa lew na rond-point Médina baay bi lewee na leen ko booba fii tëli nekku fi tëli bi fi la ñu fekk bañ koy defar rond-point bi fi la ñu fekk lamp yi fi la ñu defar mboolem cantine buñ fi samp ci rond-point bii fii la ñu fekk fii bañ fiy nekk booba ña xam kese lañ fi fekk ak raay bi ak euh, are gaar ba nekkoon fee boobu timi jotaan ñu daw ñibbi Abdourahmane mu baay àkke nañ ko ba sonn këram def nañ euh, délégation ba sonn àkke ko këram ne ko euh, sëñ Abdourahmane ñu de dañoo bëggoon ga dimbale ñu ñes ndax rond-point bii bu guddi jotee ñu daw ñibbi lamp amu fi dara amu fi bu guddi jotee sax nit ñi euh, diñu fi fekk di jéem a nangu liñ jaay te mënuñoo ñàkk liggéey te ngeen ñu dimbale bàyyi ñu ca xay ga Abdourahmane ne toog leen fii dana baax waaye lam waxoon dëgg la da ñes baax na de fi ñu toll nii ba kenn ku ci ne bëgg na fi place léegi nag gàmm gi rek ñun mooy suñ problème ndax fii bu dul gàmm fii lañ xam fi lañ ne ci dëkk bi fi lañu naaj di fekk fi lañu taw di fekk fi lañu gudd di fekk fi lañu bëcëk di fekk ñu daan suñu doon rek nag di ñaq di yóbbu ci suñu kër ya waaye nag gàmm bu xasee teru fi mu ne bu gàmmu terewaan sax la ñu yëkkati waaye fi mu ne digg wi nii ca cat digg wi bala ñoo mawli rek nee na ñu jóg leen ñu pamti pamtee nga dem nag fas yéene koo tëdd sa kër sa njaboot war a lekk say gan war a lekk nga war a dalal say gan te liggéeyoo doo am foo ko jëlee te fii rek lañ yaakaar nag fii lañ xam miri na baay gii fi lañ juddoo fi lañ màggee fii lañ xam xamuñ fenn fenn xamuñ fa ci xay gi lañ nekkoon ba ñu indi ci rond-point yi mosu ñoo génn mirin ñuy ñaan yàlla nag di ñaan sëriñ bi mu dimbale ñu ay doomam lañ ay taalibeem lañ ñi ngi koy ñaan mu dimbale ñu bu gàmm jotee mu seet bu fekkente ne mën nañ ñoo toxal sax sësal ñu ne ruq ruq sii kat féete leen ci te may gan ñi fuñ jaar may leen gan ñi fuñ toog ba gàmm gi passé su ko defee ñun tamit foofa ñu ne yàlla mën nañu faa fekk wërsëgal ñu loo xamante ni dañ ko far yóbbu ci suñ kër yi lii daal moom la ñuy ñaan ñu dimbale ñu ci rafetlu nag nag lii nag moom rafetlu nañ ko ndax bëggoon nañ ko waaye xamuñ fu ñuy jaar sëriñ ba buñ fa demoon tey ne salaamaaleykum sëriñ bi lañ soxla ñu ne déedéet waaye nag ko ba nga xamante ne nii lii ren moom ñun kontaan nañ ci kontaan nañ ci bu baax di la sant yow tamit nag di la gërëm di la ñaanal yàlla fan wu gudd wa ànd ak ak wér sa liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeer ndax lii bëggoon nañ ko te mënuñ ko woon a am te xëy na lii danañ ci jot te buñ ko jotee jomb danañu dimbale ndax ay taalu bi rek lañ di ñaan yàlla rek mu mu ñu ñu toog rek ba yàlla noppal ñu moom la ñuy ñaan mujj gi bi itam nag yàlla guddal fanam may ko wér yokku màkkaamaam yàlla na sut baayam aw fan moom sëriñ si yëpp nag sëriñ si si mbiri na baay ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal li ko dalee ca papa Cheikh miy mag ba ca ay rakkam ba ca caat ba ca caat caataat ñu ngi leen di ñaanal yàlla nañ sut seen baay aw fan pied bi yàlla nañ fi yàgg ak ak wir ak tal man a kàttan ñu ngi leen koy ñaanal imaam Cheikh mi nga xamante ne nii moom mooy mooy suñ imaam di lépp dëkk bi ñu ngi koy ñaanal moom tamit fan wu gudd ak wér yàlla na sut bàyyam aw fan c'est eh, Assane Cissé yàlla na ko sut aw fan yaar bi moom tamit yàlla na yàlla yokk leeram ndax ku baax la woon koo xamante ne nii ku bëgg nit la ku nuru maamam yàlla na ko yàlla eh, leeral eh, kanamam. voilà yaa ata gannaaw boo yëkkatee ñaan gi yëpp te ko si imam bi xalifa bi. ak euh, motu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp tey nag euh, kàddu gu mujj gi rek mooy tey nan la jaaykat yi di waajalee gàmmu Medina Baye gi. niñ koy waajalee mooy nu ko sëriñ si di waajalee rek ñu ngi koy waajalee nu ko raw ndaxte suñ sëriñ dañu daan wax ne suñ bàyyi lañ ko déggee ne sëriñ bi da daan wax ne wàcc leen lal yi génn leen néeg yi abal ko gan yi te foofa suñ bàyyi jaaroon fa lañ jaar ba ba fi mu ne nii ñuy ñaan yàlla sëriñ si nañ ñu ñaanal kàttan loola ak man-man ak ak ak doole ba nga xamante ne ni ñoom gan ñi bu xajoon ci seen kër yi sax nañ ñëw ñun ñu génn suñu kër yi jox leen ko ndaxte ñoom li ñu bëgg loolu lañ bëgg luñ bañ loolu lañ bañ yéen ñi nekk si biir réew mi ak si bitim réew wax nañ leen ne dara du leen ëmp fii nga xamante ne nii moo nekk wàccaayu gàmmu Medina Baye si jaaykat yi rawatina sunu yaay yi nga xamante ne nii fii la ñuy daanee seen doole ñi nga xamante ne noonu la ko yeneen euh, dëkk yëpp di defee waaye ñoom seen marché seen lépp tey fii la ndax doomu Mawlana Cheikh Ibrahim moo fi teewoon kon ki nga xamante ne moo nekk Cheikh baay Mamour mi nga xamante ne tey jii nii moo jiite COMAF dégg na leen ki nga xamante ne Cheikh Siraj mi nekk si wàllu organisation bi dégg na leen Cheikh Abdourahmane dégg na leen mo Amina mi nga xamante ne moo jiite ansaaru diin di euh, bokk si lii financé gàmmu dina Baye ñoom ñëpp tey dégg nañ kàddu yi nga xamante ne moom la suñu yaay yi ak suñu papa yi yëkkati ak borom jakartaay yëkkati. jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy yi beneen yoon rek ni nga xamante ne noonu la koy defee waxtu wu ne ñu ngi fii ci rond-point Medina Baye di def euh, fooglu gàmmu ni nga xamante ne noonu la ko euh, àdduna yëpp di defee si xew-xew diine yi nga xamante ne nii mi ngi am si bépp barab waaye nag Kossy yi jël ay matuwaayam fépp foo xamante ne nii jaaykat maga fa mbala liggéeykat ma fa mbala borom kër gi mi ngi ci këram ñu fekk ko fa xool li nga xamante ne moom lay dundee Foglu gàmmu Medina Baye euh, kii nag tey kenn la si taalibe yi ñu fekk ko fii si rond bi sëñ bi gannaaw bi ñu la nuyoo tur bi. Modou Lamine Samb. Lamine tey ñu fekk la fii ci rond-point ngay liggéey si wàllam njaay tey nan ngeen di dundee euh, wàccaayu gàmmu Medina Baye. waaw ah, gàmmu gi ñu ngi koy waajal bu baax a baax di ñaan yàlla yal nañu fekk ko si jam tàmbali ko alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin di nuyuwaale sëriñ bi ak mboolem njaboot yi si aju si kawam yëpp. voilà Lamine ñaan yàlla ñuy eggale ko si jàmm am naa yaakaar ne bu ñu waxtu dee wàccaayu gàmmu Medina Baye euh, dana nekk loo xamante ne nii dana yëngatu si côté bu nekk wàllu njaay mi nan ngeen koy dundee wàccaayu gàmmu Medina dina ah gàmmu gi moom njaay mi bu gan ngi ñëwee dañuy dañuy jaay bu baax a baax wante nag saa yu gam gi ñëwee rek gars yi dañuy fitnal fii. di naan di ñu yëkkati toxal ñuy indiwaat ñu di ñu jaayal place yi xam nga dañ comme ñun ay taalibe lañu yàgg nañu fi war nañu mun nañu comprendre bokk ñu ñoo xam ne ñoom par gamu rek la ñuy ñëw di jaay su bu gi jeexee ñibbi ñun moom yàgg nañu fi lool. fii la ñuy dëkk ci pays bi ay taalibe bàyyi lañu di fii la ñuy daane suñu doole yi saa yu gam yu ñëwee rek gars yi dañuy fitnal wax dëgg yàlla loolu la ñuy ñaxtu ni di ñaan gars yi bu gamu ñëwaatee. ni dimbali ni lillahi wa rasul ñu bàyyi ñu fi ni continuer suñu liggéey kon ñu ko daan defee kaddu gu mujj gi lan ngay tàggatiko ah di ñaanal serigne bi yal ko yalla may guddu fa nak wër zaahiran wu baatinan ak ñi aji ci kaam ak rakam yi yëpp ak mboolem ki nek ci pays bi gamu gi ñi ngi ñaan yalla ya ñuy fekke ko jamm tam dugg bismillah rahman rahim ngeen si alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi ñaanal ñepp ñepp lu ñu wax ak lu ñu mën wax yalla na def jamm macha allah nee na ah, wax ji yëpp mooy nekk li gars wax rek bi bi lan la moo nekk pour dimbalante japalante te tey ñoom ay taalibe lañ kon pare nañ pour. ay badge yoo xamante ne nii su ko Ansaarud-Din génnee jox ko kenn ku nekk si ñoom danañ ko joxe kon Seydina Aliou Guèye nga xam ne tey Kossy ba tey ni ma ko waxee rek mu ngi béy waaram si wàll wu ne si Ansaarud-Din muy si Komaaf muy si liggéeyu Hadratu Mawlana Cheikh Ibrahim kon eh, benn buntu génn na mooy jaaykat yi nga xamante ne nii ñu ngi si rond-point Medina Baye bi si lépp loo xamante ne ñoo ne fi si ay carte Ansaarud-Din tañ bàyyi leen fa ñekk di liggéeyal Baye Niass defe naa loolu suñ ko amee dana nekk si lu yokk seen liggéey defe naa loolu président bi si national international dana ko yëg mu nekk que Cheikh Moun Amina Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh Abdourahmane di nuyu Cheikh Siraaj waaye di nuyu ki nga xamante ne moo nekk président COMAF di Cheikh Baye Mamoun Niass kontaan nañ bu baax a baax ñu fas yéene eggaat keneen rek ci liggéey bi